waaw salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum waa Sénégal maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen jox seen cër yéen ñëpp ah di kontaan ci yéen dafa am benn affaire bu ma seetlu fan yi muy raam lu tax loolu war am senegal yéen da ngeen a gis turquien bu jógee Turquie ñëw Sénégal di investir dara bàyyi ko fa chaque jour ngeen gis turki turquien bu jógee Turquie ñëw indi senegal dara bu investir ba pare day jël xaalisam yóbbuwaat Turquie defar réewam ñun ñuy sonn nga gis français bu jógee France ñëw Sénégal investir ba pare bu paree day buubaat li mu yor yëpp yëpp France defari Sénégal France ñun ñuy sonn nga gis chinois yi ñëw indi seen i bagage investir buñ paree dañuy jël xaaj bi yóbbu léegi pourquoi ñun suñu doomi réew mënuñu ko jàppale yéen a ngi gis tey ku ci mel ni suñu papa Mbàkke yu fay maa ngi koy bégee bu baax billaahi musuma koo teg bët barke alxuraan dama koy dégg si réseau yi rek ndax teraanga yu baax lu muy def papa Mbàkke yu fay tey bëgg Sénégal bi mu bëgg Sénégal nawloo Sénégal bi mu nawloo Sénégal def lu ne Sénégal yéene Sénégal lu ne tey mu ne moom dafa ubbi télécomam mooy tey télémobile am mu tudd promobile muy réseau boo xam ni tey di nga ci mën a connecté di nga mën a wuy téléphone ak woote tey mu ubbi loolu tey ki nga xam ni tey ñoom waa fri ñoom laay waxal sax waa Free ñoom ñi nga xam ni tey ñoo ne jóge bitim réew ñëw ñu dalal leen ñoom biñ ñëwee tey sénégalais yi dañoo ubbi seeni xol dalal leen lu tax tey ñuy xeex Papa Mbacké fay lu tax tey ñuy xeex Papa Mbackiyou fay mi nga xam ne Sénégal la dëkk te lu mu am Sénégal la koy bàyyi pour lan ñu war koo xeex yéen sénégalais yeewu leen ubbi seen i bët man nag dëgg rek a ma ñor tey sénégalais bu ma gis tey keneen di ko xeex ku doonul sénégalais damay taxaw wax Papa Mbackiyou Faye ubbi na réseau bu tudd Promobile jël leen ko ngeen yëkkati ko ndax tey boo jugee Sénégal dem Europe ak foo mën a dem ci Europe wala nga dem fépp ci États-Unis boo ko bëggee ubbi réseau réseau téléphonique du dox ndax tubaab bi nawloo wuñu la tiituroo wuñu la faale la dañ ko dul doxal ñoom seen doomi réew avant tout kon tey nañ yëkkati Papa Mbacké yu fay mi nga xam ne defal nañu teraanga bu ne sagal na Sénégal nu ne la ko sagalee nag nu ne nu ne la ko sagale sagal àdduna sagal askanu tiijaan askanu murit laayan xaadir ñëpp Papa Mbacké yu fay teral leen tey kooku moo ne tey dafa am réseau téléphonique nañ ko jàppale yëkkati ko ba ci kaw boycotté ñëpp su ko jaree ndax tey ñun tubaab du jóge fële ñëw naan day xeex suñu doomu réew boo xam ne tey daf ñuy sagal di ñu teral yéen a ñu lu ne yow nga ne da koy xeex pour lan foo ko teg doo yarul rek yarul papa Mbackiyou Faye moo moom promobile nañ ko yëkkati ci kaw. dégg naa nag réseau bi léegi mu génn xaw ma kañ lay génn dama koo dégg ñu wax ma ko ndax man lu ma ñor rek laay wax loolu daf maa ñor moo tax ma wax ko mais maa ngi leen di siyaar bu baax. di leen bëggee di kontaan ci yéen boycotté leen réseau yëpp te jël promo bi yëkkati ci kaw ndax moo ñu amal njëriñ ñun waa Sénégal moo ñuy dooleel xaalis bi Sénégal lay des ñun ñoo ciy jëriñu jëlul dara yóbbu ko bitim réew jaajëf.